waaw damay wax rek ne li fi xew moom loo xam ne lu doywaar la ndaxte dañu nekkoon fii ci péncum ndaw réew mi li ñu fi indi nag en man personnellement li ma fi indi li indi tamit euh, coalition Benno Bokk Yaakaar mooy ñu waxtaan xool lan la fi ministre yi di indi jëwri ni suñu ñëwee ku ci nekk ci pàcc bi nga xam ne moom ngay liggéey nga wax ñu lan nga namm ci doomu réew mi su dee jàngale ñu ne lii lañu ñu namm ci jàngale bi ñu voté budget bi ñu liggéey su dee faj la lii lañ namm ci faj ci doomu réew mi ñu voté budget bi nit ñuy liggéey su dee jumtukaayu xarala naka noonu su dee mbay la naka noonu su dee napp la naka noonu loolu kese moo ñu fi indi parce que loolu moo tax euh, population yi yónni ñu boo xamee nag li tax li la tax a ñëw danga koy def parce que ñun loolu la ñu def joxe suñu amendement yi nga xam ne mooy euh, li député mën a def bu voté jotee ñu vote def habilitation financière u ministre bi ne ko nag boo dellu see nga wax ñu li nga xam ne moom nga fi digee woon te jëmmale ko ci Sénégal yi est-ce que def nga ko noonu rek lay doyee doxee ci biir loolu nag xuloo am na fi xastante am na fi loo xam ne vraiment c'est pas du du suñu culture c'est pas la culture sénégalaise ku ci nekk nag li nga jëlee sa kër moom ngay indi fii nag loolu nag kenn mënu si dara waaye liñ fi gis tey moom dafa doy waar ndaxte dama toogoon ci premier rang bi gis deux ou trois rangées Euh, chaise à côté ma gis benn député Ami Ndiaye ñibbi bu Benno Bokk Yaakaar mu am beneen député bu tudd Masata xaw ma fàtte naa sant bi bu yeewi askan wi ñu def li ñu naan violence verbale kii wax lii kii wax lee en général nit ñi dañu taxaw di euh, jox xarbente comme on dit après ku si nekk dem sa yoon mais li ñu xalaatuloon woon moo maanaam góor góor jël loxoom dóor ko ci jigéen en public muy flagrant délit loolu loo xew mu ñëw dóor ko daf ko dóor ci ci kanam ci xar kanam da ko dóor loolu si si suñ kanam la euh, après mu am keneen koo xam ne daf ko daf ko weq si biir toog na nag ñaari waxtu ñetti waxtu parce que après man toog naa di maa ngi koy observer parce que tamit loolu mooy sama rôle parce que dama dama si si mbirum faj laay lay laay liggéey maa ngi koy observé eh, li ma koy observé daal bon mu xawoon bizarre tuuti daal ba benn instant rek mu daanu bi mu daanoo ma am na loo xam ne loolu loolu la ñuy def pour euh, pour faj faj bu njëkk bi ñu faj ko faj bu njëkk bi yóbbu ko ak ànd ak sapeur yi au yi ñu ànd ñoom yóbbu ko ci biir euh, ci ci infirmerie bi am na benn infirmerie bu nekk fii nii ci assemblée. bi ma xoolee ma gis ne que lii doyul am na leneen lu ñu war a def parce que urgence am na ma yóbbu ko ci benn hôpital fii nii benn l'hôpital bi ñu yegsee ci hôpital bi li xew mooy euh, dañu def urgence bi mooy dóor biñ ko dóor ci ci kaf euh, kanam ak yooyu yëpp ñu faj ko bi ñu ko fajee ba pare ñu gis leneen parce que dañ ko defar écographie biir bi ñu gis que ne am na lu fa xew ndaxte soxna si dafa dafa ëmb dafa ëmb ëmb boo xam ne matugul ñetti weer ku xam ëmb bu matugul ñetti weer xam ne euh, amagul stabilité cest à doom bi stablagul bu ñuy defee écho bi ñu gis ne am na am na lu doy waar ñu yóbbu ko rapidement ci euh, maternité bi hospitalisé nañ ko foofu mais fi ne nii situation bi ñu gis situation bu doy la parce que euh, soxna si mën na ñàkk Euh, ñàkk biir bi euh, loolu moom moo xew tey euh, chaque jour nag ñu ngi mi ngi suu traitement am ay traitement yu ñuy def ay ay traitements hormonaux et tout bon ñu xool nag fan la jëm maintenant li graaw tey li xew fii Sénégal ci pencum ndaw bi la ndaw réew mi la la xewee député yi war a joxe exemple ñu def loo xam ne loolu man bokkul ci valeuru Sénégal mooy dóor jigéen dóor jigéen ay loolu kenn mënu la ko expliquer nu mu nu mel non seulement dóor jigéen mais dóor jigéen boo xam ne dafa ëmb loolu moo xew fii ci assemblée Sénégal nañu xoolaat suñu bopp bu baax je pense que doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew ak ci biir réew mi euh, tey réflexion bi war nañ ko pousser parce que Sénégal mérité wuñ ñu am ay. penc ci ci pencum ndaw réew mi ñu am ay ndaw yoo xam ne euh, li nga xam ne mooy suñu valeur duñu ko duñu ko euh, duñu ko jëfe loolu daal moom mooy li xew tey léegi laa jóge donc hôpital jox leen information yooyu. nga xam euh, xam nga fi xam nga fi Sénégal. réew réew yoon la yoon moom li mu war a def yëpp dina ko def l'hôpital li mu war a def dina ko def xool li li li li li dal soxna si soxna si tamit def li mu naan porter plainte ou porter yoon def li mu war a def loolu moom mooy euh, li nar a am parce Sénégal euh, c'est pas un pays d'impunité maanaam nga def lu la neex rek dara du la si fekk mais surtout man damay euh, désolé wu lii xew actuellement assemblée comme ni ma ko waxee assemblée ñun saytu budget voté budget controler loolu moom mooñu fi tax a ñëw waaye di ñëw foo xam ne góor jël loxoom dóor jigéen dóor ko ak ak ak ak haine te vidéo yaa ngi fii ak beaucoup de haine loolu c'est une catastrophe pour une société nit wax ko bañ ko wax c'est une catastrophe pour la société nañ teg politique fële xanaa absolument rien à voir avec la politique du mouvance présidentielle du opposition ça c'est une catastrophe pour une société et tak loolu nag sénégalais yi bu ñu gisee dinañ xamal seen bopp parce que ñun liggéey moo ñu fi indi c'est pas pour rien ñu bàyyi lu bëri fële ñëw toog fii pencum ndaw na pour liggéeyal Sénégal bu ñu liggéeyee nag euh, nit ñi nañ jaarale mbir mi yoon bu ñu ko jaarale mbir mi yoon peut-être qu'on pourra sauver cette société qui est très très très menacée.